parte qui che metti il riso e loro tu metti il riso e dai loro Semua aku ada anak gani. Anak gani. sama m a t i a lu m a e l a t aku a n a Thank you. ñoo xam ne ñoom lañuy joxaat ndombo tànk yooyu ñu war a mbéyal liggéey bi ba leen diiru ñaari at buñ ne dañuy tas bima bi nag su fekkee ne ñoom rek ñoo wax amul laaj bu ñu leer su ko bu ku nekk di ngeen gis njëriñam mais heure bu ngeen ko bàyyee di ngeen gis conséquences daan na leen kenn ku perché so che voi cittadini senegalesi eh, avete bisogno di È vero, eh, sicuramente eh, in questo momento ci sarà mm, bisogno di aiutarvi, però ecco, io penso che il nostro popolo... Anche se... Eh, Soprusi a, ah, ai quali purtroppo venivano sottoposti. Devo dire che sono contento perché... Président bi association bi ñu ñëpp la bu mandat bi jeexee dafay démissionné dem toog fële ku nekk tànn ku la neex ñu ñu ñu ñu ñu nommé ko président mu yeggali liggéey bi ñu jël lépp jox ko takk ko ci loxo wasal ngeen baal ma. bi ñu jógee ci loolu programme boobu nag bi non si può più limitare ad andare a lavorare retourna rek ak ndimbal yi 2153 virgule 42 parce que boo ñëwee samedi ñu gis ko ñu jox la ko te fekkee da nga bëgg a retiré sa benn jubale ñu gën a góorgóorlu ci li nga xam ne lii mooy suñu ma xalaatoon nag mbirum kër nag soxal na ñu ngi ñaan yàlla lépp lu suñu dignité nañ ñàkk fa ñu ñàkkoon parce que dana tax facilité am ji jiite nañu ko jiite bu rafet tette nañu association bi ba mu yëg si ba fii kon amul kenn ku fa nekkoon pour yore ko man nag man sa bopp xam naa ne affaire boobu mënu ma koo gérer parce que chaque mois rek dañoo di jël cinq euros si gars yi quoi parce que man foog naa ne parce que yow parce que bureau ba pour ñu wax ne euh, Cheikh Tounkara loolu leen moo fa jël lenn rek laa doon joxe man kon damay lancer appel mbooloo mooy doole kenn ku ci ne boo defee quarante cinq jours nga jot ci man mii mun naa ci nettali dara maa ko def li ma bëgg ñu xam ko kër goo nekk ñu lay laaj ci góore ban ngaa seet ca kër ga koo xam ne kii kenn ku ci Adja Ndiaye Sabrina ci jàmm la te ci foola ko mënee sec six mois parce que tamit ci euh, association bi la jëm si kanam ci kanam maa xam ne ñu seq association ARESA ñoo ciy daje ngir càmbaraat mbiru association bi li nga xam ne mooy doxalin bi nga xam ne bureau bi doxal na ko ci at mi ak comme ren nga xam ne dafay tombé seen mandat war a jeex ñu war a formewaat bureau bi su ko defee liggéey bu mag la wante dinañ jéem ci kàttanu yàlla jéem koo tënk ci ñetti tomb tomb bu njëkk bi wàllu information lay doon ki nga xam ne moo jiite woon bureau bi di dana jël kàddu janoo ak mbooloo mi am mbir yu leen leeralal muy rapport conciliaire di loolu moom moo koy leeralal mbooloo mi ba nga xam ne incha allah lépp dinañ rek seen bopp buñ ci jógee ba tey ci wàllu information dinañ jox ki nga xam ne mooy secrétaire général bi di Gora Mboup moom dana leeralal mbooloo mi li nga xam ne moo nekkoon rapport activité ak ñu li nga xam ne mooy def ci wàllu liggéey fii ci toll ci 2009 buñ ci jógee danañ jox ki nga xam ne mooy vice bi ñu mu defal leen bilan statistique suñ ci jógee ni nga xam ne mooy trésorier bi nga xam ne moo yore keesu mbooloo ni Thiéma mu defal leen leen di compte financier yooyu su ko defee ñu xam li nga xam ne moo fi dugg ci at mi ci koppar ak ci yan bunt la jógee ak li nga xam ne moo fi génn ak yan condition moo ko génn am nañ fi ay gan ñoo xam ne dañuy ñëw bokk ak ñun mbooloo mi bokk ak ñun waxtaan bi ñoo ne dinañ jox kàddu ñu am kàddu yu baaxee mbooloo mi ki ci jiite mooy honorable Galloosi Tullio nga xam ne moom toog na ci table bi nga xam ne moom moo fi war a nekk consul Sénégal ci région marquée à Abruzzo et Emilia-Romagna ci biir loolu dinañ bëggal mbooloo mi ne consulat bi nga xam ne moom lañ doon toppatoo ci fii ay at ci dëkk yu bëri doon ko xeex yàlla baaxe nañu ko moom sotti fi mu nekk nii moom mi ngi yore këyit bi nga xam ne ci président de la république Abdoulaye Wade la jógee signé na ko joxe na digal ci ñu def ko kon moom moo fi nar a teewal Sénégal couvrir ñetti régions yi muy Marche Abruzzo ak Emilia Romagna su ko defee moom dinañ ko jox kàddu eh, mu am lu mu waxtaan ak njabootam parce que moo fi nar a nekk suñu kilifa. fa tabaarakallaa bu fi jógee it am nañ fi beneen gan bu ñuy wax Andrea Rosendaal kat li mu baaxe booloo ba tey am nañ fi beneen tur bu ñuy wax Leonardo nga xam ne médiateur culturel la moom it dina am ay kàddu yu mu baaxee mbooloo su ko defee bu ñu jugee ci wàllu woowu nga xam ne mooy rapport yi nga xam ne moom la ñu waa bureau bi war a defal danañ am waxtaan bu ndaw bu ñu def ci li nga xam ne ñoom moom la ñu wax ndax olof yi dañuy wax naan xaw ma benn lay pàq la xaw ma su fekkee ne ñoom rek moo wax ca kenn amul loo ciy laaj bu ak ay ñu war a leer dana des su ko defee bu ku nekk waxee li nga xam ne mooy li nga war a wax danañ jox mbooloo mi kàddu ci lu gàtt ku ci am lu gën rek leer su ko defee bu ñu tuddee ci tomb bu njëkk boobu dañu daal di jublu ci tomb bi nga xam ne moo gën a am solo ci liggéey bi muy bureau bi ñaari at la mandat waroon a diire kon bis ni ko tey lay jeex ci AG bi kon bureau bi day tas ñu ngi fi joxoon ay ndombo tànk ñu delloo ndombo tànk yooyu ñu seetaat ci mbooloo mi ñoo xam ne ñoom la joxaat ndombo tànk yooyu pour ñu waroon wéyal liggéey bi beneen diiru ñaari at buñ dañuy tas bureau bi nag tekkiwul na ñu fi nekkoon dañ leen di seppi sànni ci bit déedéet mais dañuy jox possibilité ñi nga xam ne nekk nañoo ci bureau bi ci am liggéey ne mun nañoo liggéeyal bureau bi mu nekk candidat pour mun a laaj ndombo tànk yooyu waaye képp ci nekkoon ni bu fekkee ne yaa ngi continuer am yëg-yëg ne mën ngaa continuer liggéeyal mbooloo mi ba tey mën nga présenté waat comme candidat pour ci ndombo tànk boobu su ko defee bu ñu jugee fi loolu daal di jëm nag ci tomb bi nga xam ne tomb bu mujj muy jugee. bu boobaa nag képp koo xam ne am ci loo xam ne xalaat la boo xam ne yaakaar nga ne boo ko waxee wala nga joxe ko suñ ko boolee li fi nekkoon dina gën a yemb mën na ko ci sànni. leeralal la ko tamit boo ko joxee incha allah dinañ la ko leeralal suñu àggee ci tomb boobu nag dana am ñoo xam ne ñoom la ñuy jox kàddu gi parce que dafa am ay information yu ci war a joxewaale muy fay. Malick Cissé ab dem ba ku ci nekk am na loo indil mbooloo mi su ko defee ñu door a eh, ci tomb su ko defee bala ñoo dugg ci liggéey bi il faut ñu ci ay baat yu gàtt rek li nga xam ne moo waral mbooloo mi li waral mbooloo mi mooy lan li olof di wax ne mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole bu ñu ko waxee dana am leneen luñ ci dégg mooy lan ñu teqale ko néew doole la. bi olof waxee loolu bu fekkoon ne dañ ciy joxe ay exemple mën nañ fay yàng fanaan fii duñ jeex benn kilifa moo ko defoon bu ñuy wax mu Lahab ibnu Abi Sufra bi nga xamee ne waxtu bi mu war a génn àdduna jege na mu tëdd ay doomam yóbbuwaat ko am na xar ak tiis ngir tàqale koo gi nar a tàqale koo ak ñoom mu ne leen dëgg la maa ngi dem waaye nag dinaa leen bàyyee benn mbir boo xam ne fii yéen ci jàpp di ngeen gis njëriñam mais heure bu ngeen ko bàyyee di ngeen gis conséquences yi daan na leen kenn ku nekk ci yéen na ma indil benn bant doom yi ku nekk indil ko benn bant mu daal di boole leen boole leen bant yii ngeen takk ko ñu boole bant yi takk ko mu ne leen na kenn ku nekk ci yéen jéem dammal ma bant yii ñu boole. kenn ku nekk ci ñoom jéem mënul fexe ba damm bant yi ka ca des jéem mënul fexe ba damm ko ka ca des jéem mënul fexe ba damm ko ba ñëpp daj mu ne tekki leen say bi ku nekk na jëlaat bant bi mu ne indi loolu ñu tekki ko ku nekk jëlaat sa bant mu ne na ku nekk jéem a damm bantam ku nekk ne ni sa bant damm mu ne leen lii mooy li nga xam ne moom leen leen di bàyyil ci moo leen war a dimbale ci seen dund loolu mooy lan su ngeen àndee nekk benn li mu leen di jox mooy ñu leen say di joxoon kenn ku nekk bi nga amee sa doole bopp ba pare yaay wëlbati ku nekk sa doole morom ba looloo tax lu ngeen di yóotu daf leen di yóbbu pour ngeen jot ci waaye it bu ngeen nekk am sa doole ba nekk sa doole morom dina tax lu bëgg a dal ci yéen da ngeen ko dë comme ni nga xamee ne sayu mag bii di ngeen ko boolee ngeen damm ko tënaleen bu ngeen taxale koo ku nekk dem sa pexey bopp ak sa doolee bopp nag ba tey rek bi ñu taxalee bant yi amul kenn ci yéen koo xam ne doolee boppam dana ko doy pour mu mun a am lu mu bëgg amul kenn ci yéen koo xam ne doolee boppam dina ko doy pour mu mun a résister wu bu dara jógee pour dal ci kaw su ko defee lu jug pour dal ci seen kaw bu ngeen taxale koo rek da leen di gaaw a faagaagal kon loolu mooy suñu dëggaloo bi ànd nekk benn boole suñu kàttan boole suñu man-man boole suñu xam-xam boole dara ci suñu am-am ngir mu ñuy tere su ko defee kon comme que li ñuy xaar ci liggéey dafa bari duñu guddal ci wax waaye dañuy jiital liñ daan jiital ci suñu ndaje rek mooy def ab dogu ñaan boo xam ne dañ ci ñaan yàlla mu may ñu liggéey bi ni ñu ko tàmbalee ci bismillah ñu àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin lépp loo xam ne nas nañ ko fi ci xalaat ak yéene ñu ñaan yàlla mu may ñu ñu mottali ko boo xam ne dana kaw suñu njortu kon euh, Cheikh Tunkara nga joxe benn dogu ñaan dugaat su ko defee ñu ñaan waaw waaw waaw waaw loolu ko defee it bureau bi amoon nañ suñu benn boo xam ne daanaka ñëpp xam nañ ko muy ñàkk a nekkal Descartes tànn nit ku tudd nit ñi la gën a xam ne moom loolu bu ñu ci ko moom li gën ci ñu soxla mu mu nekk nii mu ngi muy yokk ay jiraabam fa mu nekk donc ñun liñ ko mën loolu dama moo koy gane fi mu nekk nii ndax nit ki bu nekkee ci àdduna dina këf këf ci lu ne mais bu teewee ci kanamu boromam du soxla mu dul jiraabam te buñ ko ñaanalee ñu koy ñaanal dina ko fekk fa mu nekk kon su ko defee yéene waale ko ci moom it defal ko ñaan fa mu nekk yàlla seral suuf ci kawam boole ko ci jamono yu wóor kon Cheikh nga joxe dàpp yaa ñetti ko hu Allahu ak salatul fate bu waay man di avere qua i nostri cari ospiti, come l'ho detto prima, che il signor Carlusi Puglio, che è il console del Senegal nelle Marche, Abruzzo e Emilia Romagna, e il signor Andrea Rosandal, che è un avvocato che ci aiuta, e il signor Leonardo, che è un mediatore culturale. Questi signori stanno sempre con noi.